vraiment le ce qui n'est pas un cas. Et je vais vous démontrer tout à l'heure pourquoi il n'y a pas de cas Khalifa Sall. C'est plutôt le cas Macky Sall. C'est-à-dire celui qui a ses humeurs et selon ses humeurs décide de qui participe et qui ne participe pas aux échéances officielles. Euh, Monsieur Khalifa Sall, ici présent, qui se trouve être le président de la conférence des leaders de Yewe Askanwe, est sorti d'une épreuve douloureuse, injuste, un complot organisé. Il est sorti, heureusement, indemne de ce complot. parce que son casier judiciaire est vierge. Il a versé sa caution lors des élections présidentielles de 2019. Il a obtenu son cutus fiscal. Et comme vous le savez, c'est à partir de cela qu'il est autorisé à organiser son parrainage, lequel parrainage lui octroie des fiches comme vous le savez, son fameux parrainage a des supports, des supports officiels qui portent le nom du candidat. Et tout cela émane du ministère de l'Intérieur qui est l'organisateur principal des élections. Alors, pourquoi on a accepté la caution de M. Khalifa Sall Pourquoi on lui a délivré son cutus Pourquoi il a disposé de tous les documents dont il avait besoin pour aller au parrainage C'est seulement après le parrainage, et surtout encore le parrainage, parce qu'il y a à redire, est-ce que finalement Khalifa n'avait pas fait peur après le parrainage qu'il a décidé de disqualifier Khalifa Sall, à l'époque candidat de Taxawu Sénégal Nous allons aux législatives prochainement, dans 4 ou 5 mois. Il se trouve qu'entre-temps, Khalifa Sall s'est octroyé d'autres galons, à savoir président de la conférence des leaders de Yewi Askan. Quel honneur, mais quelle charge. Président de la conférence des présidents de Yewi Askanui, pour qui connaît Yewi Askanui <laughs> je pense que Yewwi Askan Wi ne va pas se laisser faire Yewwi Askan Wi ne peut pas se permettre de laisser monsieur Macky Sall selon ses humeurs organiser la disqualification de son président et peut lui interdire de participer aux prochaines échéances c'est pas possible c'est pas possible et je pense que si je vous dis que c'est pas possible ça veut dire que ça ne se fera pas d'autres ont déjà porté le combat à savoir le M2D, pour ne pas le citer. C'est le, le, mouvement pour la défense de la démocratie. En son sixième point, a été explicite. Il n'est plus question de disqualifier des acteurs qui ont le droit de participer aux échéances électorales. Il peut tenter de le faire. Ce n'est plus pareil. Il n'est plus simplement seulement le leader de Tahoe Sénégal. Maintenant, c'est un autre Khalifa Sall qu'on a en face. Comme vous le savez, nous avons averti parce que nous avons essayé de parler à nos guides religieux qui nous encouragent à préserver la paix. J'ai beaucoup aimé un titre de ce matin, un journal qui a titré euh, le calife appel à la consolidation de la paix Yewwi Askan Wi pose le problème des dossiers politico-judiciaires de xalifa Sall, Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. C'est vrai. C'est vrai, nu l'avons posé. Parce que ku bëgg jàmm da ngay def jàmm waaye Serigne Cheikh si Sy Al Maktoum daf ni woon bu jàmm xewee ku wax ay yaa waaye ku jëm ci yow ak ay boo defee jàmm yaa tooñ parce que lum la def yow lum la def yow la dafa am nag lu fi xewoon deux mille dix neuf te bi muy def xew deux mille dix neuf tegewu ko fenn lu dul làqutu def ko ci panier rejet parce que bu ngeen fàttalikoo dafa amoon. cinq candidats cinq quatre candidatures acceptées ak vingt deux rejets mu jël xaali kaawu Khalifa Sall def ko ci rejet yi bu ngeen ko seetloo sax ba le lendemain la ñu door ne noo Khalifa amul problème mu parenage mais problème mu dossier judiciaire waaw koo xam ni yow yàlla dogal na sa casier judiciaire dara newu ci vierge na koo xam ne taxaw nga verser sa caution caution ba versé woo ko par la poste demul fenn danga ko versé CDC nga ko dugal CDC di démembrement de l'État ñu accepté ko nga jox la say këyit jox la say fiche de parrainage fiche de parrainage yooyu document officiel la nga am sa quitus fiscal war a nekk candidat ñu bàyyi la nga pare ne ba parrainage yi jeex moom baa du parrainage ba sax dafa la lu tax sawaay tiit ndax moom depuis parrainage yi pare la dooree ñëw ñu ni rejeté nañ ba xalifa Khalifa ak ba su waa Wade waaye yooyu c'est pour des raisons judiciaires ñu dugal ko ci keesu rejet yi daal di am na 22 yu ñu rejeté kenn xamul kii la kenn xamul kaa la ba ca ëllëg sa ñu door ne xalifa loolu moo tax ñuy artu nag validé wuñ ko de dañuy artu artu bi ñuy artu moo de élection législative yii Khalifa Sall mii mooy président conférence des président day bokk élection législative yi ku ko déggul jottali ko ko nee ko Khalifa Sall day bokk xëy na ba muy président taxawu Sénégal mën na ñoo def lu leen neex tey nag Yewwi Askan Wi moo portel Khalifa Sall candidature am ci législative yi am nañu ko porté woon waaye boobu du même contexte bi ñooñu démocratie la ñuy défendre parce que lii dafa bokkul ci démocratie bokkul teguwul ci yoon donc m comme que dañuy toppatoo dañuy défendre démocratie ci Sénégal loolu moo tax ñu porté woon ko ci seen point 6 gannaaw bi ñu porté lu concerné Sonko ci point 3 bi ba pare parce que booba sax waxuñu xalifa rek dañ de xalifa ak monsieur Karim Wade tey nag m mu ngi leen di wax ni décidé na ni président wu conférence des président même su bëggul bu yeewi askan wi c'est vrai de ma présiser ni président de la conférence des président bu yeewi askan parce que nag dafa am solo dëgg la ndax buñ nee yeewi askan wi rek dafay suggérer beneen taxawaay est-ce que bu boobaa ku ñuy yab la wala ku ñuy yab est-ce que yeewi askan wi war nañ ko yab bu ñu nee yeewi askan wi rek bu boobaa borom na defaruwaat parce que du ku ñuy yab. du ko yablu boppam loolu moo tax c'est important ñu présider ñu préciser que c'est le président de la conférence des président de Yewwi Askan Wi ma teerale ci loolu ndax boobu Yewwi Askan Wi laay waxal Yewwi Askan Wi ñoo ne ñoom ñëpp nag dans toutes ses composantes ci structure yi mu am yëpp ci yi mu am yëpp ci collectivité ya mu nekk yëpp fii ak diaspora ñu ni président Macky Sall dootuñu la may ngay def lu la neex Khalifa sàll mii dafay bokk ci élection yi incha ndaxte mënuñu waxtu wu nekk ngay def dara ñu dëkki nangu dévoyé nga conclusion wu CEDEAO wax nañ ko léegi duma ci dellu siwaat diaspora bi ba nga jàppee ni am nga ci doole da nga ñëw daal di ne député de la diaspora jàpp ni 15 yëpp yaa leen di moom la ca jot a rëcc sax euh, jaaxal na la tey bi nga xamee ni moomatoo diaspora bi nga ni diaspora bi nañ ko wàññi wala ñu dindi ko du fi amee mu ngi ci yoon wi ndax seeni carte yaa ngi ko téye def nga rétention de carte au niveau de la diaspora euh, euh, commission yi nga xam ne ñoo waroon a wër def révision yi nee nga benn commission du wër parce que ministère bi amul xaalis loolu defal lu la neex waaye lii moom am na ci loo xam ne dootuñu la ko may dafa taxaw ndax xalifa Sall mii loolu samay wax la man dama nekkoon maire moom mu nekk maireu capital te mbootaay gi ñu amoon muy association internationale des maire francophones maireu capital bi ak président des maire ñoo ciy bokk mais Sénégal ñu ni comme am na parité dañu mayoon ñun ñeenti maire yu jigéen ñu bokk ci ma ànd ak moom AMF balaa de la noyé di wax dara laaj ko te ba léegi aan ci loolu la nekk kuy meeru Paris ku nekk moom ngay jàpp ni mooy sa point focal au niveau de l' Afrique waxuma la Afrique de l'Ouest ma ànd ak moom CGLUA marocain yi ñoo ñëw seet si ma ci sama suite ni ma dañu bëgg yow mi nekk sénégalaise nga taxaw wax te booba ministre des collectivités nga fa woon Machin Sarr boobu moo moo nekkoon ministre des collectivités yàlla dogal waxuñoo ak moom man mii lañ waxal ni ma xalifa bëggatu ci dara booba ñu Johannesburg la woon mu ni ma ñu dem Africité ñu ni ma bëggatu ci dara mais dañoo bëgg CGLUA moom mu continuer nekk secretaire général kii nag dañuy wax ak moom teel parce que bañul dara buy bàkkoo président Union africaine dama ni ñun faalewuñu loolu parce que bala ngay nekk président Union africaine dangay ngay respecter Union africaine xalifa bi ñu koy demetre mu ngi nekk secrétaire généralu CGLUA CGLUA moo yore les les les collectivités et gouvernements locaux booba la xalifa moo nekk secretaire général ba siège ba nekk Maroc bi ñuy démettre xalifa boobu mu ngi nekk répondant ay AMF donc loolu kooku su bañul loolu su bañul def loolu su bañul yàq deru Sénégal ci loolu pour des af pour des complots politiques ma ñun itam bu ndee rusul tàggee du rus quand le le le mal à toutes les audaces le bien doit avoir tous les courages moo tax dinañ ko dénoncer dinañ ko wax fii wax ko kër sëriñ si wax ko ci mbedd mi roote ju ko ci robinet ba demee ko marché naane ko attaaya